mercredi 3 juillet 2019 ñu ñëw ci yëglikaay yi yëglikaay yi nag tey jàppal sunu làmb fa la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi nag dafa ñëw ci date yi nga xam ne nii day fi mu nekk nii olof a ko wax lu def waxu lu ay di njàmbat muy diggante Modou Lo ak ki nga xam ne moo di Eumeu Sène waaye Lac de ger 2 ak ki nga xam ne moo di tamit booy ñan bu dee Modou Lo la ak Eumeu Sène moom yëglikaay bi ne day jàppal xeex bu naroon a doy waar bu naroon a metti moo na a am bërki dem ca fa nga xam ne moo di TFM waaye nag yàlla moo fa jaar wus ca ndox mu set ba daal mbir ma mujje sottiwul waaye loo ci mën a dégg moom seen face à face ba moom fa mu naroon a naa doy waar yëglikaay bi ne na jàppal am na koo xam ne moom sunu lam daal jàpp ne moom da doon xaru moo tax mu tudde ko ab kamikaze nee na moom day dañ ko indexé ab moto daal la yoroon ñëw di xool fu mu koy xëpp ca la jege waa kër Eumeu Sène wala fa Eumeu di jaar mu mel ni ki nag ci jamono joojo la lay am moom jàppal ñu ngay rëbbante daal wala boog ci biir fa nga xam ne moo di almadi moom ba deux heures du matin daal gaaya ñu nga fa ku ne seet foo jaar ba nga xam ne nii daal yow doo bokk ci ñi nga xam ne da ngeen di espionné wala ngay dugg ci seen i ku ñëw daal ñu ngi lay liir ak dina la ñi ba xam foo jóge ak foo bokk waaye jàppal ba tey combat booba Moustapha Diop mu ko tëgg moom nee na def na ci ñetti téeméeri millions ak juróom fukk maanaam trois cent cinquante millions daal mooy budget wu combat bi loolu suñu lamb xëy tey dinu ko wax leneen loo xam ne yëglikaay ba wax nañu ko mooy lamb ja Baye Ndiaye tëgg moom tamit ñaari mbir yoo ko seq muy Lac de Guiers ak ki nga xam ne moo di booy Niang ñoom ñaar nag fi mu nekk nii ci diggante la ñu toll ku daal jàpp nga ne sa morom bu ñu ca yeggee moom bu ma la jàppee waaye day dina metti ci yow moo tax ni gi kaay bi jàpp ne day xeex mënu faa ñàkk ñaar ñii moom fi mu nekk nii moom dafa mel ni xeex daal lañ bëgg a def Malick Thiandoum moom mu ngay dëggal loola ne daa mel ni kon ñoom dañoo am en fi boog ngir bagaar maanaam daal xeex moom daa mel ni seen diggante nar na ca am ki nga xam ne nag moo di Palla Diop moom la mu xam ne day nee na ardo moom boo sàgganee bés boobu day ah nar na amab liggéey de ndax ñaar ñii moom ni mu leen gisee jàpp na ne moom danañu xeex ba yegg ca leneen loo xam ne nii moom wala ñeneen ñuy waaj a xeex mooy kii nga xam ne nii moo di ndandi faal ak ki nga xam ne moo di Kuli Faye numéro 2 yëglikaay bi ñëw ci jooju lamb samedi la Sam Mbaye moo fa jaar Sam production mu mel ni ki nag ki nga xam ne moo di Sawru Fall mu ngay wax ne na Kuli Faye day li mu war a moytu wala mu war a koo def boog mooy xeex bu gaaw loolu daal moom la ko Sawru digal Ndandi Fall nag moom Sawru daa jàpp ne moo gën a sax technique beneen combat boo xam ne moom buy bët setee lay am maanaam la set. Assane Ndiaye jaar fa muy diggante double moteur ak fëga la maam lees di entraîneur tamit mu nga cay wax de ci ñaari mbër yooyu mu mel ni ki ñooñ tamit day seen mbir nar naa tàng jër moo tax sax ñu ngay jàng nekk day jàppal double moteur moom open press sam tay la koy def fëga la suba beneen combat boo xam ne tamit am na zal ba mu ngi cay ñëw loolu tamit lay am fa nga xam ne ci arène nationale ba zal moo cay wax lam ja nag ka ñuy wax lay njaay moo ko tëgg mu mel ni ki nag diggante Aliou Mané tamit ak kii nga xam ne nii day moo di Sunjata lu nar a méttee méttee méttee lay doon zal ba mu ngay décortiquer li nga xam ne moo di combat boobu waaye leneen loo xam ne tamit dañu cay dem ba tey jàppal mooy li nga xam ne moo fi amoon amee woon fa nga xam ne moo di ca mbuur muy drapeau chef de l'état bi Abdou Badji nag mu ngay def li ñuy tudde inventaire wala muy def boobu maanaam évaluer daal maanaam di jàngat la fa amoon Abdou Badji day jàpp na ne ki nga xam ne ni moom déception la ci tournoi bi maanaam daal ku bett nit ñi koo xam ne fañ ko xaaroon wàccu fa moo di bépp jéen moom daal daa jàpp ne moom mooy déception wu tournoi bi waaye mbëri 120 kilos yi moom jàpp na ne booy fay moo ci gën a technique moom Abdou Badji mooy wax général affaire lourde la waaye nag nag il faut que mu gën a liggéey ci côté technique daal gën a yokku xam-xam bi Thiès itam sumil na ko sàppo ca gañe ba nga xam ne gañe nañu ko tournoi ba waaye yeneen région yoo xam ne day sumil na leen sàppo wala muy wax ñu bàyyi leen xel Abdou Badji nee na day Kédougou la Matam Tamba Saint-Louis du Sénégal nee na ñii daal boo boo bëggee dégg dëgg moom ah def nañu ay avancé yu baax a baax a ci lii nga xam ne nii day moo di tournoi wu chef de l'état bi mu mel ni ki daal kon jàppal drapeau chef de l'état ba moom safoon na lool sàpp fa nga xam ne moo di ca Mbuur Cees gàddu ko dal di koy yóbbu ca Kajoor waaye li ma xam daal ba xam ko mooy que ni day Taala Njaay li ma la mën a yëgal daal weekend bi nu jëm moom nar naa xat ndax bu dee samedi Iba Mar Diop sàmbay day ñëw kuli fay ndandi fall samedi ja ba tey arène nationale yëngu ca jamono jooja ki nga xam ne nii moo di Aliou Mané su ñetta bët set Assane Ndiaye woote waat arène nationale ma moteur fëga la ñu ne déet ne waay dimanche ja ca topp Baye Ndiaye woote kon mu mel ni làmb ji moom fi mu nekk ni ay sax jax na xaw ma nag yow loo may wax ci combat yooyu mu fi lim yëpp ay sa fay mbokk yi suivre Leewtoo TV ñu leen nuyu baax di leen ziar di leen jaajëfal comme chaque jour rek ànd ak yéen seen revue de l'arène ginnaaw bi Babacar defee jàngat bi ba pare ñu ñëw si li nga xam ne nii mooy ginnaaw Babacar defee revue ba pare ñu ci li nga xam ne ni mooy jàngat bi ak li nga xam ne moo gën a fës te euh, ci yéenekaay yi ñu ñëw ak euh, li nga xam ne Babacar euh, mooy sunu lamb mm-hmm. waa ay maa ngi lay nuyu ah, di la ñaanal jàmm di ko saaxu ci yow et puis di ko ñaanal internautes yi di ko saaku ci ñoom comme ni nga ko waxee rek di wax ne que rek chaque jour ñoom ñu ngi leen di namm ñu ngi ñuy namm waaye ñun ñu leen di gën a namm ah, yi di la nuyu et di la delloo kàddu bi ay sa di déglu question yi. ba ñu demee li nga xam ne am na fi ci ay face à face ba tey coole des bi diggante Boy Niang la dëgër coow yaa fi ba léegi diggante Modou Lo Eumeu ñu gis ko tamit coole des fi ba léegi maanaam bataille rangée bi nga xam ne doole ku nekk ñëw fas yéene défendre ki nga xam ne ni mooy sa mbër fexe ba kenn du ko jege te mu jaral leen lu ne. waaw loolu moom defe naa ne xel mën na koo nangu ku ne défendre sa mbër ndax ñun man keroog maa ngoon Almadi TFM. maanaam la fa am ñun vraiment teewe nañ ko muy que ni ñaari camp yi ku ci nekk yaa ngi doon veillé bu baax a baax ci sa mbër di bàyyi xel ci loo xam ne ni war na mën a dugg ci biir ci seen biir rax leen te bokku ci loolu nag mooy li war a am parce que lamb ja moo toll foofu muy la kaada Modou Lo muy la kaada Eumeu Sène ku ci nekk rek ak ñi nga àndal loolu pour man noonu la war a taxawee maanaam euh, fexe ba yow lépp lu lay déstabiliser wala lu yàq sa bés nga moytu ko ba ba arbitre bi soufflé loolu nag li ko waral mooy combat bi moo toll foofu ndax làmb ji moo am enjeu comme ni ñu ko xamee kii dafa yore roi des arènes ba pare ki muy bëreel daanoon ko kee itam soxla roi des arènes ba pare daan ki muy maanaam ki muy bëreel mu daanoon ko kon loolu boo ko indee contexte boobu rek ça veut dire que combat boobu combat bu méttee métti la ñun lañ leen di gën a dolli en tant que ay frère mooy que ni nañu gën a veye ci seen ay mbër d'accord waaye tamit nañ koy def ci loo nga xam ne nii sens bu euh, kii sens bu amee maanaam sens responsabilité quoi sens bu positif bi mooy lan bàyyente xel parce que bu ñu defee leen lu loolu rek mën na indi loo xam ne ëllëg la muy jur bu ko juree du noppal kenn kon nag ku ci ne défendre sa mbër ci lu nga xam ne ni waaw façon bu normal la mais ñu moytu tamit lépp loo xam ne ni violence lay doon moo xam looy wax nit ki la muy wax parce que wax violence la am na yoo xam ne waxu violence la am na jëf yoo xam ne waxaatee waxaale weesu ko kon yooyu yëpp nañ ci veye bu baax ba parce que gënuñu leen a nekk ñun ay responsable gënuñu leen a nekk ay ñu bëgg seen bopp mais dañ leen di dolli rek juste que ñu xam ne lii làmb la sport la te ñaari doomi réew mi ñoo koy def waaw Babacar euh, dañuy jóge foofu tamit dem si li nga xam ne ñoom booy Niang ak Lac de keroog gis nañ ñoom ñaan ñëpp seen fas à face bi bu ñu taxawee envie bi ñu wane ku nekk ni wane ni jour ba xeex ba war na nekk loo xam ne war na am seen diggante ñuy laajte nag na xeex boobu noonu lu ñuy dëggal lay doon wala lu ñuy wax ni kese la Malick Thiandoum wax na Bala jóg wax na xalifa ja wax na mais moom Khalifa Dia moom nee na parfois li ñuy communiqué ak li ñuy def ci biir bu jour ba du doon benn. waaw waxi Khalifa yooyu moom dama ci dama koy. nga ma koy dëggal parce que li tax mooy euh, communication wu mbër avant combat ay sa xam nga baax li ma lay wax bokkul ak réalité géew géew dafa am nu ñu cay demee du ni ngay toogee nii rek signature contrat say supporter ñëw di yooxu ngay wax loolu dañuy présenter rek pour man mais du wax joo xam ne nii juñ ci waaw ju ñuy téye di ko defe la ndax làmb tactique la calcul la ak ay tactique ak ay sema yooyu teg pour mën ci génn nekkul xeexu mbedd du da ngay ñëw rek fiti fiti dóor yi waa ji déedéet parce da nga fay ay millions di entraîner yor ay entraîneur di préparer wu du lu kon loolu defe naa loolu rek dèjà mooy lay loolu rek war na la jàngal ne ka làmb du da ngay ñëw rek ne damay dóore Aïssatou mi rek maa bi fe rek ñëw ne da nga koy dóor Aïssatou am na nu mu àndaale voilà en même sa doom sax yow njaga sax tey am na loo xam boo ko ni doon dóore bu la moytoo nga daanu te pourtant yow yaay yaa ko doole mais la kon nag loolu mooy làmb làmb maanaam mbër mu ci ne li ngay wax avant combat bokkul ak boo duggee si géew bi li nga war a jëfe parce que da nga am ay entraîneur ñu encadré ne la ni ngay bëree waa ji moytul ci moom li moytul ci moom la kanta boo ñang la dëggër nag mën nañu xeex man du ma ci dàq xeex waaye yaakaaruma ne xeex bu yóbbu ardo dina ci am waa mais nag xeex dina ci am parce que il faut ñu ubbee xeex xalaat naa lu mel noonu parce que ñaari waaw pour am buntu parce que ñaari mbër yi danañu nekk ay mbër xam ne ay tacticien lañu maanaam seeni làmb yëpp ci dafa am ci ay traitement yu koy teg mbër mën a sa bëreet am na technique ak tic-tac ak yooyu mais ñoom dañ ko gën a man ñoom dañu bokk ci mbër yi gën a mën a def lu mel noonu voilà waaw euh, ku nekk Babacar am nga sa fort ci ci làmb am na ku nekk nooy engagé say combat mais dañuy dem ci li nga xam ne mooy weekend bi di ñëw gala yi ci nekk suñu làmb commencé si def ay analyse diggante Aliou Mané ak ki nga xam ne ni mooy euh, Sunjata Zalba ñëw na ci Sooru Fall ñëw ci diggante Nandi Fall ak Koli kii tey nga xam ne tamit euh, mooy coach Parcelles Mbooloo bi daal di ñëw ci Mame Less daal di ñëw ci li nga xam ne mooy dox diggante ki nga xam ne mooy double moteur ak fëgg la waaw waaw mu nekk ay combat yu nar a metti ah, ci weekend bi ñu jëm nii parce que de ak Nandi Fall seen làmb dama leen yërëm parce li tax mooy fi ñu jógee moo metti ay sa ku ne da nga teglante ñaari defet tey ku daanu da ngay am troisième défaite te il faut am ku daanu ndax ndax soo xamee ni ñuy bëree ñoom ñaari mbëri di nga xam ne il faut am ku ci am défaite moo tax nag kon vraiment loolu Sëru Fall wax kenn kii di euh, kële Coly Faye xeex bu gaaw bi moo ko arrangé mais jàpp na moo gën a technique ci techniquement xëy na mën nañ leen daan di moo xaw a ëppale foofu loolu nag li li tax ñu wax ko mooy boo xoolee bëre bi ndandi di ba ak tournoi li simple yooyu quant ku li fay moom lambam da koy baatare waaw mën na sax xëy na sax ndandi mën na ko mën na ko bañ a dàq bëre mais am na loo xam ne su ko mbëri def maanaam yenn yi du feeñ ci moom maanaam bu fekkee day ñëw battre bëre bi xeex ak yow jël la foo nekk bëre yu jóge fi yooyu mën na bañ a a feeñ mais jàppal ne daal ñaari mbër lañ yoo xam ne nii Coly Faye nag xale la boo xam ne nii mbooloo mu bëri topp na ko muy yaakaar bokk ci yaakaar yi caaro yi tey kon am na lu ko war ndaan defal itam fi mu nekk nii écrit ganaaf mën nañ ne moo ko tee ndax Zarko nekku fa kon moom itam am na lu ko war moo tax combat bu nekk combat bu ndeysaanu ko bi mu koy ne nii moom moo di Sunjata ak euh, Aliou loolu tamit combat bu metti lay doon parce que li tax mooy Aliou Mané ku gëj a am ndam la 11 ans amul victoire loolu xam nga bëri na mais itam doo ko gis ne daa manqué entraînement kon lu ko manqué xamuñu ko xëy na dina ko indi si combat bi suñu yàlla nag mu ngi ci lancé wu bëgg a jóg en tant que xale ndax mu ngi ci ay victoire am. dafa bëgg a confirmer daan Pape Sène saison. voilà Pape Sène moom mooy kon mooy sax mbër bu njëkk am victoire arène nationale kon kooku jàppale moom tamit mu ngi ci dinaam kon combat boobu tamit du nak lu yomb parce ne da ngay euh, kii di euh, euh, Pape Sène nan déggal sax maanaam Pape Sène kële ni ñu koy waxati li muy bëgg mooy des ci li mu nekkoon Aliou day bëgg ñëw bokkaat. loolu mooy wax ji double moteur fëgg la nag ñoom ñaar fi mu nekk nii ku ne naan sa conscience tranquille na ndax li tax mooy ku ne ci ndam nga taw toog fëgg la ci ndam la jóge mook Jokkel double moteur jóge ci ndam mook naaru Sogas ñoom ñaar nag la mu wax mag ci làmb parce que noonu la ñu loolu la ñu mën a wax parce que mooy mooy li am double moteur xale la ci làmb waaye nag ki yor licence am entraîné apte ñu jox ko licence aysa boo ko jàppee mag ci biir combat lu ne mën na la cee dal double moteur moom soo xamul nu muy bëreeg fëgala jàpp ne mag la lu ne mën na ko dal ndax fëgala mbër mu mën a bëri la mbër mu mën a xeex la te it mu ndaw double moteur nag liñ koy wax mooy moom xale la d'accord ne nañ xalaat nañ ne mooy ëpp doole mais man loolu duma ci duma ko dëggal parce que li tax mooy fekk la lante wuñu duñu ko mën a mën naa ami faveur nag en tant que xale mais kay itam am nay faveur en tant que ku ko mag ci làmb expérience bi waaw loolu dimanche lay doon ak Assane Ndiaye arène nationale la set Babacar dañuy jeexal ak li nga xam ne tamit mooy ba tey drapeau chef de l'état bi ñu jógee ci tournoi bi mu des ay euh, bilan kii di Abdou Barji di DTN moom moom moo ñëwaat ci def euh, li nga xam ne nii amoon na fa ñëwaat ci li nga xam ne ni mooy mbër yi nga xam ne gis na leen fa ku nekk mu wax say talent wax say faiblesse ku si mel ni bébé Diène moom jàpp nañu déception la parce que ak waroon na andi lu ëpp lim fi lim fa lim fa joxe kii di Boy Faye mu gis ci moom koo xam ne ni ci 120 kilos yu fa nekkoon yëpp moo ci gën a technique général Malika tamit wax na ci moom am na victoire certes gagné na mais am na tamit côté technique lu mu war a améliorer waaw Abdou Badji ñu koy nuyu di ko ziar di nuyu au nuyu waa CNC yëpp parce que c'est technique national loolu mu wax nag it boroom xam-xamoo ko wax te am na loo xam ne ki la koy wax di boroom xam-xam su la koy wax da nga koy déglu parce que mbir mu ne bu ñu la koy wax dee ko dee ko jële lu positif parce que moo lay tax nga mën ko jariñoo boo ko jëlewul noonu rek mën nga ci gis leneen euh, bébé Diène li ñu koy wax mooy xale la boo xam ne ni dafa mën a bëre kaar macha mais itam loolu ko Abdou Badji wax na ci bàyyi xel parce que nag pour man niveau bi mu nekk sa war na ko dépasser ci lutte simple ah mais nag it lu mu doon rek da koy jox gëdd jox ko fulla jox ko fayda et puis boo nekkee sportif wala nga ci loo mën a yëngu Aïssa bul di teel a doyal maanaam teel a doyal mooy tey Babacar a ngi def revue Aïssa ngi koy dékk micro ñu jàpp ne yegg nañu au sommet yooyu dina tax nit tayal te olof a ko wax ku naagu daagu ku daagu ñu raw la yaa ngi dégg loolu mooy li nekk kon bébé jën na gën a defaru Abdou Badji mi ko wax boroom xam-xam la li mu wax ci booy fay tamit lu am la Boy fay defe naa 120 kilos yi tey ñu ko ci ëpp technique wala dàq ko ci bëre dama naan amu ci kon Abdou Badji mi wax loolu c'est le mooy directeur technique national booy fay loolu defe naa motivation la ko war a yokk ngir mu gën a redoubler d'effort parce que li tax mooy bu ñu la nee yaa fi daa yaa fi yaa gën a technique ci cent vingt kilos yi nekkoon drapeau de l'état ba tax nga eh, bàyyeeku yi gën a yokk sa niveau bu déwénee mën naa boo participer gis ku la gën a ndax da ngay gis keneen ku nekk di liggéey ngir bëgg la nga bëgg waaw comme loolu mu wax tamit ci ki nga xam ne mooy euh, général Malika am na général Malika macha lépp ngi ci moom kon itam na gën a yokku xam-xamam techniquement parce que li ñuy wax rek ay sa xam-xam du doy mais daal vraiment dara résultat bi tamit neexoon na bi di félicité waat rek encore une fois waa région de Thiès yi nga xam ñoom la yàlla def ñu gañe ko bi yoon Mm-hmm. waaye Babacar la ñuy fii ñuy tàggoo ñi nga xam ne ñooy suivre Leewtoo TV di leen jox rendez-vous suba mais balaa boobu dañuy nuyu Mame Talla Chéri Lébou ci bi nuyu Ousmane ci montage bi bu Leewtoo TV bi yëpp di nuyu tamit képp koo xam ne rek yaa ngi safoo Leewtoo TV di ñu encouragé di ñu jàppale. waaw loolu am na di nuyu ñëpp internautes yi encore une fois parce que man du ma leen fàtte ah, que ñoom ñooy lépp ah, di leen siyaar di leen jàmm xam nga ñoom Mamadou Salif Diallo ca waaw Lisbonne ñoom Diop xam nga gaa yëpp ñoom ki nga xam ne ni mooy Fatma Fall Bergamo ca Italie ah di ko nuyu xaw moom doomu Balla Gaye la xam mu taal bi Balla Gaye ñoom Mado tamit ak sa rakk nekk ca Italie Nogoy Faye mu ngi koy nuyu di nuyu borom këram di nuyu ñëpp ñi nga xam ne daal ñuy su jamam di sama xarit Youssou Ndoye l'international ma koy nuyu di nuyu képp ku nga xam ne yaa ngi ñuy suivre mais tamit di nuyu sama benn doom bu nekk équipe nationale wala sama rakk sax wala sama doom santé ba waaw muy Saliou Ciss di ko ñaanal jàmm di ñaanal équipe bi yëpp jàmm di leen ñaanal match bi ñu jëm contre Ouganda yàlla nañ ko gagné si jàmm mais di nuyu képp nga xam ne daal yaa ngi ñuy siifur di nuyu tamit maire Souga yaay maa ngi lay nuyu yaay caat caat maire Souga maa ngi yow ñoo bokk caat maa ngi nuyu caat fay bu baax a baax taala di ko defal mention spéciale Siri Lébu liggéey bi am na solo di nuyu équipe bi yëpp nday Kumba yàgg Ousmane képp ku nekk Leewtoo biram bàyyiwuñ la daal rawatina nag ñu nekk Leewtoo TV ak Leewtoo point net yëpp waaye nag mention spéciale à Aïda Diouf maa ngi nuyu bu baax a baax Aïda séréer bu xees bëggee naa la kontaan ci yow Aïssatou Faye di wax ne xol bu sedd yaram bu sedd yàlla na ko ñëpp am barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. salaam Babacar ci loolu la ñuy joxe rendez-vous suba incha allah.